nyan gi ñaan gi du dem hmm. su nit ñi doon boo doon wax nit bu subaa da ngay am nangam ah xam nga da ngay fen la lay wax hmm. mais gis nga yaqin boobu nga xam ne nit ki daf koy am nga xam ne ngay taxaw nga ne ah suba de nangam dina am mu wóor la wóoral yàlla sa sens yépp d'accord na ci dina am def yow da ne yow hmm. dox muy taxaw guddi di julli day tax nga sa day tax alaikum ye assalamu alaikum alaikum ye assalamu alaikum alaikum ye assalamu alaikum alaikum ye bul faté cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am bul faté cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti konjak nga mën ko ñëk am eh, dañu bëgg ñëw ci manam nawafila moy nafila hmm. suñu waxee farata moy tisbar takusan timis gee ah, nafila hmm. des nako def yor yor hmm. des nako def balanga julli tisbar des nako def balanga julli takusan des nako def ginaaw timis waye bi may indi tay moy bi nga xam manam maanaam digg guddi digg guddi lañ koy def yenn moy xaju guddi rek bu bu nit bu guddé rek xaju guddi waaw la yonent la yàlla waxoon ci alquran ne ko yaa ayyuha musammilu qummi layla ila qalilan layla qalilan waaw sëñ Tuubaa di ko way naan salma wa layla bil bil busaaraati tax fu junubuhum fi madaajihi na mu ko waxee woon ca xoqal bu kaaw tax fa madaajiha léegi nag mooy nawaafilu guddi daal ci gàttal laa bëgg a wax ci loo xam ne kenn mënu ko kenn mënta am li nga bëgg ci yalla ci luddul dang koy bolé ci bagage yi. nafila guddé waaw. bëccëg ak dina and ak salatu waye dama bëgg léral nafila ba paré waaw gis nga aduna yalla nim bindé doomu aadama tax nit di ñaan muy nang li tax nit di jégué yalla ak li tax nit di wal nek wali wala mu nek ko nga dafa am dafa dafa dafa dafa am cër ci suñu borom. Mhm. daf ci bok mhm. nit ki ci bopam li ñuy wax intelligence. Mm-hmm. émotionnel mm-hmm. intelligence émotionnelle wala intelli euh, non intelligence artificielle laa bëgg a wax waaw mooy sakaaxun istirna bi uh-huh. arab di wax wala sakaaxu euh, zakaaxu tabia maanaam intelligence bi nga xam ne naturel la ak uh-huh. intelligence artificielle dafa am ñaari intelligence yu nekk ci doomu aadama mm-hmm. léegi nag bi nga taxawee gis nga nit bu toogee nii guddi jot li ma lay wax nag nit na ko isee rek ay fan mu xool ñëpp tëdd bul yor portable bul tal tele bul def dara togal yow don donte ñaari rakka la nga taxaw allahu akbar taxaw julli ta yalla rek tax mm-hmm. selmal ci diggu guddi mm-hmm. nga def ko defati ko defati ko da ngay dem ba ci kanam mm-hmm. liñu wax euh, intelligence euh, bobu ma wax léegi ni intelligence artificielle manam wala intelligence euh, naturelle bi nek ci yow moy jog manam da ngay xamne yow yaqwo da ngay am ak ñemeñ ci sa bop Mm. da ngay am ñemeñ ci wóolute na tamit yow xaritu yàlla nga dangay am wóolute na tamit yàlla merewu la. Mm. noonu nga koy toppee da ngay dem ba am yaqiin ci ne mm. yow soo waxee yàlla daf lay dégg. loolu kenn mënu ko triser nag. amul nit fu mu mën a jaar ba loolu ba xaal boobu dikkal ko lu dul dafay sikar ak di taxaw guddi. léegi nag doomu aadama ci boppam. waaw ni mu njort boppam noonu la mel. ah voilà ni mu njort boppam noonu la voilà gis nga yalla ku ko ñaan mu may la hmm mais gis nga amna na ñi nga xam seen gémmiñ man na ñaan yalla mais buy jog rek xol be koy weddi wat te mënu ci dara parce que gis nga boy làqatu di tox di mm. làqatu di njaalo di làqatu di def nangam mm. yow ci sa bop ci sa intelligence bi sa xol xam sa bop boo nee yàlla allahuma rek mi ngi na la ah, du nangou dee <laughs> parce que mënu ci dara timit lolu mënu ci dara ni sa làmmiñ nga xamne bu nee beureur rek xol bi da koy dakkal boy ñaan le boo tax ñaan gi ñaan gi du dem mm. su la nit ñi doon boo doon wax nit bu subaa da ngay am nangam ah xam nga ne dangay fen la lay wax. Hmm. mais gis nga yaqin boobu nga xam ne léegi nit ki daf koy am nga xam ne da ngay taxaw nga ne ah suba dee nangam dina am. mu wóor la wóoral yàlla maanaam sa sens yëpp d'accord na ci na dina am. waaw li def loolu mooy yow danga lay wóor ne yow yàqu woo. Hmm. loolu nag li ko mën a dox doomu aadama mooy muy taxaw guddi di julli day tax nga ñeme sa bopp. day tax tamit nga wóolu sa digganteeg yàlla. Hmm. day tax tamit nga mujj nekk nit ku yéeg. léegi nag intelligence mhm. artificielle boobu may wax waaw su fekkente ne nit na di zikkar di zikkar di zikkar di ba pare di taxaw guddi di naafila mhm. dinaa am ay naafila yu ma joxe mais li muy jariñ laa bëgg njëkk a wax di taxaw di naafila te te yàlla rek tax day dem ba xolam day am loolu léegi bu dee ku ne sëñ Basiru nga xam ne mhm. mooy wayjuru sëñ Muntaxa dafa wax ne su la loolu dikkalee soo xëyoon tey nga soxla saako ceeb mu ne xalaat ko rek xalaat ko waaw dafay mel ne daf koy am lu koy xëcc ñu indil la ko soo bëggoon parfum. Mm-hmm. xalaat ko rek. Mm-hmm. so loo bëgg. xalaat ko boo ko boo ko xalaatee te teew teewlu ko rek. maanaam mel na lu ko yéenee am rek. ni ko yéenee noonu lay amee. Mm-hmm. bu la bu la nit defaroon aw yiw sax. imaginel rek kii daal yëkkatiku am jàmm am xewal image boobu boo ko defee rek. noonu la ko yàlla di tabaxee. def ko mu nekk réalité. te loolu mën naa ci indi ay ay ay mbir yu dul jeex gis nga man daara ja ma doon jàngee. waaw sëriñ bi dafa nekk mën naa tudd turam mais xam naa du ko neex ma koy tudd ci télé. dañoo mësa taxaw di ruuj bi ñuy ruuj jaan hmm. daw jek jek rek genn ci taxasi rek na dagat ci caaya ji fekk mu capp new york rus ci caaya sëñ wallahi ñepp ti taxaw jaan jaan rafut rafut lu yeme la lay wax de bëccëg mako fekke ci ci mi ngi ci caay sëñ bi ndax taxawal ko kilifa la de sax wa nu man kañ ko euh, bi mu duggee mënuñu ko def dara ñu taxaw hmm. daf na tek mom ci bopam hmm. rafut gestu defut dara jaan ji ci bopam wa mo gennal bopam daw dem ba ci sébb bi mu xaru billahi wal kitab duggu ci ki bi duggu ci tal bi xaru allah li ma lay wax liko fekke ëpp na téeméeri nit mom mo gennal bopam ken dàq ko moo génnal boppam génnal boppam dem ba ci tal bi mu xaru allah akbar foofu luñ fa jang dara loolu loolu mooy li la wax la mooy yëg yëg li ma la wax ne la deg gën na deg mu wor ko ne li du sumi tubayam ci kanamu nit ñi. Mm. waaw tey wóor na ko ne jaan ko matt ndax moom quelqu'un la. maanaam loolu li koy def nit. waaw loolu moo moo moo ah. mooy wax ak mooy ah. intelligence bi nga xam ne day wax ak sax mala day wax ak sax nit koo xam ne télépathie koo xam ne nekku fii man man am naa ci anecdote mm-hmm. euh, pharmacie Clémence bii ci asalem mm. bii ma asalem mi ngi may dégg loo ma mas a ay 2010 dama mas a am asma ay côté guddi nii ma am asma ma daal di ñëw ci moom ne ko man de loo sama asma bi daf ma daaneel te man dañ maa wax ne dafa am garab boo xam ne doom boo xam ne dañ koy naan rek mu faj asma bi. Hmm. loo ne ma doom bi nu mu tudd ma ne ko xaw ma ko. mu ne ma la ko wax ma ne ko man daal rakku jiili création boobu jiili création. nee hmm, na moo ma wax ne ma jiili am garab yooyu. Hmm. mu ma léegi ah loolu de moom mënu ma cee jaay kenn garab. loo mi ngi dégg ma ne ko ah nu ñuy def kon mu ne ma ah xanaa nga jéem a woo jiili yow xam nga jiili jiili. kilifa la ma ne ko ah jiili de moom aw ma maqaamam jot ko téléphone man. mu ne ah kon nag xanaa nga jéem a waxtaan ak rakkam mu waxtaan ak mom su la joxe turu garab bi bo ñëwee ma sukkandiku ci ma jaay la. Mm-hmm. ma ah, ah kon de xana ma dem rek waye bobu asma jang ma sonal. Mm-hmm. gis nga dama genn ci buntu pharmacie bi tek sama tank taxaw rek jiili ñew taxaw ci buntu pharmacie bi gaare. jiili ci bopam billahi wallahi lo ngi may deg mu daw lo genn ci ki bi ñew na ko jiili loo wut fi mu ne ko dama damaa rek sama xel dama jaaral set lo rek ma jaar fi manako ko garab gi nu tuddu mu ne ma seral Hmm. ma dugg ne ko jaay ma siraal mu jaay ma ma dem <laughs> yu mel noonu maanaam hmm. la la woote yàllaa gën bu nit voilà hmm. boo gisee ngay dem ci suñu fàllu mu ne la na na nangam am waaw loolu gis nga intelligence bi ma wax nii maanaam xaal boobu waaw nit mënu koo judduwaale koy nit du ko donn nit du ko julliwaale da koy xëcc ci sa bopp guddi gi da koy xëcc mu koy dinaa ko xëcc mu ñëwal la waaw bu nekkee ci yow tamit loo gën a doxal. Mm. day gën di màgg. Mm-hmm. léegi nag guddi. bu dee yooyu guddi goo ko mën a am. naa ko képp nag. rakkay mën nga tari saar yi nga yónnee. wala dafa am ay saar yu spécial bi ne yow moo mu sàngu. waaw xummi layla ilaa xalilan jógal nga taxaw ci guddi gi lu mu tuuti tuuti. Mm. yonent bi yàlla wax na ko inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan mm. maanaam li yaxfira laka lahu maa taqaddama min zanbika wa maa taaxara jéggal nañ la mbooleem bàkkaar yi nga njëkk a def ak yi nga mujj a def teewul da daan julli guddi daa isa naan ko xanaa yow jéggaluñ la hmm. amul benn walli yu woo xam ne maanaam maqaama moom ñi ngi koy am ci taxaw guddi ku bëgg lijaaba te doo taxaw guddi moom dina jafe ci yow d'accord léegi nag guddi bu dee naawa fi la man bu dee niñ ko ni ma ko ni ma ko xamee mooy moment nit day am ay moment yoo xam ne ci njàqare ngay nekk hmm. moment fitna moment moytu da ngay jàng fatiha ayatu kursi yu defaat fatiha def la xadd jaaku soo ko dee def bu dee ci jamono yu njàqare la yalla dina wëlbati njàqare ji mu dem hmm. su fekk ci jamono yu jo xam ne la nga xëcc xéewal ak yoyu da ngay def alam nasara ñaari rak, hmm. ben rak ñaar rak alam nasara ak li ilahi quraish hmm. su la nexé nga ne man tay ñent rak la julli def sama safa wiitar su la nexé nga ne fukki rak la julli def sama safa wiitar su la nexé nga ne ñaar fukki rak la julli def sama safa wiitar ba téméri rak num la nexé rek mais bu dee ñaari ñaari noonu nga koy defee mais li dal boko saxalé sëriñ buy ñaan nga waaw bu la nit di wax soxla sa xol bi day seddu guy ndax da nga xamne yalla yàllaa ngi lay waji a day wallahi man damay dal nit day ñew nan la sama problème bi dem na ci seigne diw dem na ci seigne diw ñi nangam nangam hmm. da ngay yakamti mu wax ko ba ngeen ba nga dugg ci ndax yalla fajj ko muy sa yëkkati ko hmm. mais boko dul def waaw bu la nit di wax dara da lay wóor na yow li ngay wax ak mom ni yow lepp ay fen la hmm. fofu yalla juddu wu fa du am waaw jere Cheikh baba ما شاء الله لسون بي امنا صلوات بكل لا لكن صلاه بي صلاه على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبي الامي نبي وعلى اله وصحبه وسلم وسلم تسليما موي صلاه الامي كوكاي ديف اجوما جوني تيمير يون اجوما دو ام بكار دو ام بكار اللهم صل على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ku koy def guddi gu nekk. ah sa Oustaz Mbengue. guddi gu nekk nga nawaa fi ba mu yegg nga def ko téeméeri yoon. doo ñàkk. waaw doo ñàkk tëdd bañ doo dund ñu dagg say tànk. ajjuma ju doo yor xetu gémmiñ. Mm-hmm. doo mujj nekk ku ñu wommat wala nga mm-hmm. tëdd ñu lay yëkkatee ka tëral ak a sang. Mm-hmm. doo yor xeeti feebar yi waga. xeeti feebar yu wàlleek lépp suñ borom dana suñ borom daal dina ñoŋal sa dund. ba sa mission mat nga dem. allahumma salli ala sayyidina muhammad téeméeri yoon par guddi. Ah, ah, allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabi lummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama <laughs> bul fàtte cliquer ci abonné. ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am assalamu alaykum alaykum ye assalamu alaykum